wala koo xam ne am na gar euh, kayiti garagiste moo ko ñemee indi mais borom bu ko dawalee fay oto ndax garantie bi ki ko liggéeyoon jeexantu ñun mënuñoo defar pneu kon nañu arrêté pneu hmm. nañu ut bus mooy am de état du ko nangu parce fay paasam ba pare fay bagage bii dem ci camion bi dix tonnes dellu si waat parce que amatul njariñ léegi remorque yu mag rek ngay gis man yeb naa ba tàyyi air liquide parce que man dama dabal oto yëpp macha allah yeb naa cette personne ba tàyyi air liquide seen bagage nekk ci frigo ñu dem jaww bi ma wàcc frigo bi freiné jël seen bagage mais tey bu ko bis bëggee yëpp yëpp 3 benn minicar bu taxaw Kaolack yëpp 2 tonnes ci biir yëpp 3 tonnes di fer ci kaw d'accord ci lan la jël client yi jël bagage yi du yoon mais transport bi amul dara oto yi mënuñoo am dara. état ñi mun leen jàppale ci yokk te yokk carburant bi nga koy dégg ñaata yoon lañ fi yokk carburant 450 ba nëgë ni kenn génnewu fi tarif. li ma li ma la waxoon laay waxaat rek chauffeur boo xamante ne amaana du du du nekk du du nekk maanaam day am lu muy jëfandikoo am na ci. waaw. ñàkk yar am na ci responsabilité boobu lu tax parfois yéen du ngeen koy génnee teg parce que li nga fi waxagum yëpp ko en quelque état bi et les autorités. je veux dire d'accord naa fi wax am na chauffeur yu jël dara pour dawal. mais am na journaliste jël dara pour toog ci plateau am na ñuy lel dara door taxaw ci baar jël dara fépp la ne loolu ngay wax am na mais bu ko jamale képp gis nga loo gis ci chauffeur am na ci état bi ñaata nga dégg ci ay milliards ci Covid bi ci ay bakkan ñu naan dañ ko lekk Cour na ko nangam gis nga sikki soosu ah, d'accord naa am na ci ñun man damay dégg benn wax ku faral di wax bari lu ma koy wax lool chauffeur yi camions yi dañuy màndi ma ni waaw waaye ni lu tax nga wax loolu tax dégg naa ki dugg caajaay dafa màndi Euh, dugg ci kër gi rey ñeenti nit ma ne waaw mais man mandiw ma musuma tox mais chauffeur bi ma yóbbaale xam nga léeg nga dégg gendarme dañuy jël 1000 francs am na ñoo xam ne ay homme de loi di homme de tenue duñ jël 1000 francs mais trouvé bu amee comme ni nga ko comparé ba comparé ko taskatu xabaar yeeg euh, policier bi waa cour des comptes ñi jël dara bu problème amee bu amee ci presse bi presse bi war nañoo taxaw def diagnostic mais bu amee ci yéen également est-ce que foofu laa lay laaj depuis la première question est-ce qu'il faut pas faire le nga xam ne dafay doon ay rëq-rëq am ci seen secteur nga nga génne ko parce que depuis le début li nga fi wax yépp amul benn tort boo teg chauffeur yi alors que ñun ak ñoom ñoo nekk te ñoom dañu am responsabilité ay bakkan je pense que loolu moo ëpp solo sax kàddu bi nga xam ne day jóg donc ñooñu aussi est-ce que du ngeen ci wax parfois ci yenn jafe-jafe. am na comportement mu dakkarul ci bus. waaw doo xam kan ñu nekk sept personnes huit personnes li ma la waxoon rek. Mhm. xëy na tey ji fekkoon dañ ko embauché mu nekk ci très bonne condition Sénégal dem di ngi ni ba mu amee ba léegi Dakar Touba 4000 la aller et retour. te par tabaski wala par màggal chauffeur yi laaj 3000 ñu dañoo yokk paas lan moo waral loolu parce que hors taxe bi ñu koy jaayee carburant amul ku koy vérifier du douane du police du gendarmerie mais dañ koy jàppale état waroon na jël tooy jox ñu change suñu won renouveler wala parc bi am na ñu yaree di ko man ci am na ñuy dawalul yoon d' am na ñuy soppiku d' accord ma ci mais dama ne secteur bi nangu naa ci loolu am na ndëpp bu ñuy waajal parce que man membre lañ ñun syndicat Synectrans ci cadre unité ndëpp boo xam ne pour waxal njaboot nag au lieu état dañu woonaa lii la def ñun ñooy pare génneel ko ni ko lii la def wala lii lañu jàpp ne moo war a doxal mbir mi wala lii ma far a ko ndax ñoo ngi waajal ndëpp boo xam ne waxal suñu njaboot ci tàmbali bi euh, ba ñu la introduire rek da nga commencé di joxe ay proposition ak yi solution ci yoon yu ñu war a mën a jaar ba accident yi wàññeeku alors 2017 conseil interministériel amoon na ci njiitalu Boun Abdallah Dionne ñu seetlu woon fa ne acteuru euh, transport routier yi saa ñu demee ci ndaje yooyu dañuy joxe ay proposition ne état bu ñu sañoon day ngeen def nii ngeen def nii ngeen def nii mais seetlu gi day mel ni duñu leen déglu wala proposition yëpp dañ koy dugalaat ci biir tiroir bi ba jëye amaat ñu wootewaat conseil interministériel ngeen demaat est-ce que ndaje yooyu yéen a ngi koy xayma jeexital li lan la mën a def ci euh, sécurité routière. ah ministre Abdoulaye Daouda Abdoulaye Daouda Diallo daf ñoo oo ñu ñëw mu daal dafa bëggoon. Hmm. su 2017 dafa waaw ministre Abdoulaye Daouda Diallo ministre transport la waaw daf ñoo oo ñu ñëw avant ministère bi dem jam ñaaji mun dafa bëggoon tëj garage yi mhm. mais xam na bu ne six heures ñëpp daw génn day wax police nationale waa léegi police boo xam ne bu dëkk lay taxaw bu nekkee dix kilomètres fi lay góor ak fukki jigéen bu ñu leen fu ñuy tëdd est que pare ngeen mhm. mun ma noonu ndax accident yi dafa leerul ma ne ko waa ñaata la ñu am ci tàngaay lampadaire mënu leen ko cee def parce que problème guddi nga wax gis nga trois heures du matin la pneu toj soo téye oto yi ba set pneu yëpp ay toj parce que tàngaay bi ka dëkk Kongolemi ka dëkk Kédougou ka dëkk Ziguinchor ka dëkk Diaobé ka dëkk Matam ka dëkk kooku bu fekkee ne jigul ci guddi gi da waxi soxlaam da ngay am koo xamante ne nii benn bis buy départ fi une heure matin mi ngi àgg Touba 5 bu la sëriñ bi wooyee nga su wax amoo faa dëkk amuloo loo jëlee kon nañu seet beneen solution muy def deux voies deux deux deux deux fois deux voies wala ut ay lampadaire mu leer nañ parce que li ñuy wax ñoom dañuy def lu ñuy def woo ñu ñëw toog. waaw est-ce que lu ñuy wax duñ ko def lu ñu ko wax lu ñuy wax duñ ko def lu ñuy wax duñ ko def lu ñuy def woo ñu ñëw toog ñu bokk ci feuille de présence bi. ñu ngi appliqué seen mooy ñu bëgg a rey ñu ngi appliqué est-ce que yéen seen ay propositions. xa xaale wuñ ñu sax dañuy def ba pare door ñëwoo. bi ñuy wax carburant bi pourtant saa yu jéyee amee ñu woowaat leen waxtaan. waaw man ñun loolu moo ñu jaaxal en fait. xam nga sama xarit Mansour Diop maa ngi koy nuyu ne nga xamoo ma mhm. man ci kër gi laa bokk par exemple gaan sama xarit la mhm. ndax sama dëkk muy kër ma daaru xam nañ ko ak man eh, dama ko oo di ko wax ni ko montage taxul accident am léeg-léeg sax montage jàpp la ba huit mille francs yi ñu la joxoon nga gis huit montage waroon ci dese deux mille francs nga mer di dawal loo xamut mhm. tey montage am na accident 54 am na mus pustaal montage yi génn nañ partout pour sécurité parce que bi neuf personnes yi amee ak ministre dafa départ jëm Tamba avant muy àgg sept personnes deyaat diggante Sindia ak Bandia tali boobu Pape Sampol doo ko defar pour ñuy dox dem Popenguine du tali Sénégal mm-hmm. mooy tali diggante Sindia ak Thiès dañu topp rek yoon bi gaa yi doon jaar dem Popenguine léegi sept personnes dee fa ci confrontation neuf personnes dee mu ñëw euh, euh, beneen organe daal di léegi day def lettre circulaire ci ginnaaw décret présidentiel dañoo waxoon ni contrôle fictif ñëpp toog douane service des mines oto bi su ñëwee jëm ñaajo war a changer dara foofu lay taxaw war a bi kippanu foofu lay taxaw parce que mouvement li kipil kenn du ko lekk ñëpp bokk toog gouverneur lañ ko waxoon da ñu jëndoon décembre ànd ko cadre unité alors zéro zéro zéro tolérance wala tolérance zéro ba léegi ci interministériel bu mujj euh, gisoon nañu ne accès woon nañu sax ci solution ak proposition yi muy sécurité routière yenn yoon lañu mën a jaar également pour kaaraange ci yoon bi mu mën a am ak zéro tolérance waaye itam rax ci dolli ay sanctions yu doy waar ci kaw tali bi mais boobu léegi dañu gis ne accident yi day gën di tàggat euh, day gën di takkarnaase te solution amul est-ce que yéen acteur yi pàcc bi ñu pàcc bi ngeen ci am ni responsabilité yéen a ngi koy doxal. zéro tolérance boo gisee du mën a dem transport bi rek moo ko moom ci biir à voyageur particulier bi su dee seen TV eh waa gars su dee sëriñ bi ma def sama kaala keroog benn waaye waratuñu bàyyi ji oto yi maaraay waa léegi kan la traversé kii amul dara rek ma ngir borom Tuubaa dimbale ma ngir Alaaji Malik mais kooku tolérance zéro. Hmm. tolérance zéro yi am croisement. amul fu ñuy rombantee foo am permis permis à point boo xam ne xaj day jaar mbaam di jaar dof di jaar koo xam ne na mhm. askan wi rek seet nañu jabalisee ndax sax ñun tamit bu ñu gerew dañu bëgg askan wi xam li ñuy wax mhm. mais fi mu ne nii buy taw kenn dafa a màgg moo gën lépp alors Fatou mi ngi koy wax xam nga bu ñu nee accident am na c'est c'est-à-dire que ne état am na ci part de responsabilité mais responsabilité yi également dafay partagé parce que facteur humain Euh, bokk na ci lu ëpp li andi accident yi muy euh, nga sonn di di force di dawal euh, nga màndi di jëfandikoo sineebar di force di dawal indiscipline ñàkkum yar ci kaw tali bi téléphone yeeg yu mel noonu te facteur yooyu dafa dafa dafa doon lu nga xamante ni dañ koy incomber responsabilité bi acteur euh, euh, transport muy chauffeur seeg responsabilité transporteur beeg nga xam moo joxe oto beeg yi mel noonu est-ce que yéen itam ndaje bi ngeen di wax ne da ngeen di def ndëpp ci seen biir est-ce que jotul nag. ah ñoo ngi ci maa li naa wax ni la. Mhm. man li dafa xeewi xam nga xeewee ak araama yam doon nay jamono. Mhm. jaray di ko moo bari su mi sa tubay yor sab seen yor sab sideb moo bari mais man di bareetul ci chauffeur. Mm. parce que boo ko defee doo am kër doo am oto ku la xam du la jox oto mm. te kenn ku ne oto jàmbur ci nga bëgg a dem ba am oto man dawal naa sama patron huit ans mu doon ma lebal camion man te xewi ngeen bàyyi ko xel xaw ma nag jël lu ñuy foon di jël bi teel sànga rek naan moom xewi na ko xeeñ borom oto nangu oto parce que chauffeur yaa ngi duñ jeex téeméeri chauffeur da ngay gis ko am fukki oto juróom juróom di fa xëy mm. soo bañee ngir ay nii nii nii ak li ma la wax oto boo xam ne xamoo kuy kuy chauffeur bi kuy tux kenn ñëw yéeg kuy nangam fukki nit taxaw ci kanam wala juróom-ñaar d'accord ma waaye nag xam naa oto bi amul dara boo tamee amoon dara waa ji départ day yëpp Kaffrine mm. beneen chauffeur jël ko boo xam ne dañ koo embauché écrit balancir noir di ko fay salaire am dama wax benn bis nii waa dem dikk man demoon naa bi may dem taxi laa yore 2004 laa bàyyi sama camion pourtant man at attoon naa ci ñun ko defal la formation journaliste bu génne si si ñu jox ko micro doom day am formation médecin da ñëw mu lay faj ba caag ñu daa dolli ko ci formation ñu jël formé parce que li ñu yor diplôme permettre la ndax bu ñu la permettre permis nga ñëw bi moo bari soo defee visite ca ca Thiès fa ngay fajoo boo feebaree Ziguinchor Kolda waa lan moo tax benn centre ne ci kiis onze ans ñu koy wax kon daal da ngay ràmme Ziguinchor ñu la jëkk ki jóge Dakar état matul genn wàll genn wàll naar ba yóotu tubaab <laughs> d'accord alors. lëkk bi bi may ñëw ñaata travaux fi am. Ah, pont Castor maa ngi dawee